waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ñu ngi rafetlu jataay bi. waaw waxtaan bi lu ñu suñ koy waxtaan liñ ci séentu rek mooy borom bi incha allahu taala waaye li ci ëpp solo ke ñuy njëkkee mooy ci wàllu kaaraange ndaxte nit ku nekk bëgg nga kaaraange ci sa yaram bëgg nga kaaraange ci sa njaboot bëgg nga kaaraange ci sa am-am lépp mu nekk loo xamante ne mu nit ki la ci walu karange nak mu nek lu am solo mo upp solo ci walu ñaan loolu yaakaar naa yàgg nañ ko waxtaanee tamit fii lañ fekk mag ñi daan ci sonn daan ko waxtaanee karange nag buñ ko waxee bi njëkk mooy karange yaram léegi nag nit ki su bëggee mucc ci lan lay mucc mooy ci làmmiñ bu bon ci bët bu bon ak ci noon boo xamante ne day sonn ngir nga dellu gannaaw ngir sa mbir yàqu loolu nag ñu am ci ay tegtal yoo xamante ne tegtal yu wér la képp kuñ ko def fekk ñu liggéey la liggéey bu bon wala ñu catu la boo ko sangoo loolu yëpp day génn bi mel ne tey nga judd yaram bi day beesaat waaye tamit du ci yem buñ la defaree ba pare dañ lay joxaat leneen nga sangoo ko pour ku jóg pour def la dara mu dellu ci koom bokk na ci liñ koy liggéeyee comme ni ngay waxee ñax boo xamante ne dafa sax ci kaw bàmmeel ak suufu sànqalañ ak xeeru ten bu te ak yeneen ak yeneen loolu am na lu ñu koy booleel nit ki sangoo ko bés bu mu ko sangoo lépp lu nekk ci yaram bi day deñ te képp ku ko liggéey liggéey bu bon day dellu ci koom am na nag boo xamante ne dañ koy liggéey beneen yoon nga xamante ne ku la liggéey du yëg si waaye du dee du dellu ci koom boobu nag mooy buñ ci boolewut ñaxu bàmmeel bi kon nag kaaraange mooy loo xamante ne lu am solo la ndaxte da ngay gis nit koo xamante ne mbiram day dox mu am tur yëfam di dem ci kanam mais mu xëy rek mel ne alalam day lakk nga gis ay otom di paan nit ñi di ko daw kim doonoon doonatu ko fekk nag am na noonam bu jóg pour fay mbiram nit nag suñ lay fay niñ lay fayee mooy sa biddew la ñuy fay nit ñi duñ la jublu loo dugg du sotti sa alal di sanku te loolu yàlla nañ ci yàlla musal kaaraange nag lu am solo la bu ñu jógee ci kaaraange rek automatique dañuy dem ci wàllu ubbeeku mu nekk loo xamante ne tamit lu am solo la ci dund ndaxte nit ku nekk boroom xam-xam yi dañuy wax ne nit ku am njëriñ moo gën nit koo xamante ne amul benn njëriñ suñ nee nit ki am na njëriñ nag mooy ci wax ak ci jëf sooy wax nit ñi nga wax leen wax yu rafet nga taxaw leen ci parole yu rafet waaye tamit nga mun leen jëriñ ci sa loxo. jëriñ ci loxo nag mooy mbokk yi ku feebar nga mën kaa faj problème boo gis nga mën ci taxaw te nit léppam yitte la rek waaw tey am na garab yoo xamante ni ku ko sangoo di nga am bayre di nga ubbeeku nit ñi dinañ la jublu am na nag ñaari catégorie bayre benn bi da ngay am am am doo am tur beneen bi da ngay am tur waaye doo am am am beneen bi da ngay am tur am am am am dangay am tur bi pare nga am am am boobu nag la tuddee bayre bukki lan moo tax ñu tuddee ko bayre bukki ndaxte bukki ci jur yëpp moo ci ëpp bayre su fi rombee ñëpp yuuxoo ko waaye tamit moo ci ëpp wërsëg lu bool boo teg bukki dina ko fekkee te fum dem day day day am wërsëg foofu moo tax mag ñi daan ko liggéeyee deru bukki ak xasu déem ak xasu Dakar Dakar ak timin timin ak wasor mu nekkoon boo xamante ne képp ku ko sangoo tey ñetti fan da nga yëg ci sa bopp loo xamante ne mosoo ko yëg ci sa bopp da gis buntu wërsëg yi ubbeeku nit ñi jublu la yaa ngi dégg képp ki nga doonoon nga xam ne kii moom doonatoo ko waaye nag na fekk biñ njëkkoon waxtaanee kaaraange boobu jiitu yaa ngi dégg kon nag wàllu ubbeeku mu ngi noonu yàlla yemalewut ay nit da ngay gis nit am loo amut nga foog ne moo la gën déedéet gënu la waaye yitti la la ëpp ndaxte xaalis bi ngay am jënd si yére sol moom loolu lay am jox ko nit ñu baax ñi ñu ñaanal ko mu yokk ndaxte investissement nekkul da ngay jënd bagage jaayaa rek déedéet bokk na ci investirement ci yàlla nga jox nitu yàlla mu def ci biiram moom tey mu ñaanal la benn mu tàllal loxo ñaanal la wala mu ñaanal la ci kurus wala mu jox jox la sunguf wala mu jox la alquran am na nag ñoo xamante ne ci wàllu nguur ak ñoo xamante dañuy bëgg nit ñi jublu leen loolu nag am na ci wàllu garab am na ci wàllu alquran ndaxte boo seetee turu yàlla bi dajale bi tudd yaa jaami boo calculer cent quatorze la alquran moo gën ci liñ li nit di wax te waxu yàlla la cent quatorze saar la am na nuñ koy liggéeyee nit ku ko sangoo àddina yëpp dinañ la jublu àddina yëpp dinañ la bëgg waaye nag loolu la ñuy wax nuuraani mooy xam-xam boo xamante ne lu leer la ci alquran la jóge mais da gis buur yu bari ñu leen ñu leen di defal tegtal yoo xamante ne ay baat yu gàtt la fekk sa deret lañuy ñuy génnee ñu bindee ko ko loolu mooy zulmaani xam-xam yoo xamante ne mbiru xërëm la di nga am ay nit dinañ la topp waaye nag ngay gis ñu bëri deret bi bëri lu muy tuuru moo tax ñu bëri ñoo xamante ne dañoo amee zulmaani xërëm booy ànd ak ñoom te pare wa ci sa bopp musiba bu ñëw accident boo ànd ak ñoom bu amee yow yaay dee buñ sànnee dara dalu leen ci yow lay dal moo tax nit da ngay am bopp nga taxawu sa bopp yaakaar naa loolu nga ma laajoon ci wàllu ubbeeku laaj nga ma ci wàllu noot mooy ci noot buñ ko waxee mooy ngay jëflanteeg nit nga bëgg mu jox la bopp wala diggante ñaar ñuy dencante mooy jëkkër ak jabar jëkkër ji jubluwut jabar ji wala jabar ji jubluwut jëkkër ji ñu siy liggéey pour ñu boole leen loo xamante ne wàllu jaamu yàlla la ndaxte tey ku am 40 dencoo soxna say nawle dinañ la reetaan waaye ku sol benn dàll droite solo dàll gauche say nawle dinañ la reetaan gauche ak droite ñooy ànd loolu mooy tegtalu noot noot tey liñ koy defee mooy nga jënd ñaari dàll sarax ñoo ñu defal la si liñ lay defal nga sarax ki nga koy sax sarax ñetti fan ki nga bëgg mu jublu la dalay jublu ndaxte nit soo koy booleeg nit pour ñu bëggante nekkul dangay ngay jàpp loxo kooku jàpp sa loxo ñëw takk déedéet biddiw yi ngay boole nit lépp luñ lay def ci biddiw lañ lay lañ lay booleel tey soo bëggee àddina yëpp jublu la biddiw bi rek ngay xool nga jat nga jox ko dara mu sangu mel ni ku ko gis mel ni ku ko xamoon téeméeri at kon nag ci wàllu noo ba ngi noonu laajte nga tamit ci wàllu kàttan mu nekk feebar boo xamante ne feebar bu bari la ci réew mi te mag ñi daan ko faj ñu ko doon fajee diggante reen ak xas ak sunguf loolu nag ku ko tudd nga dugg ci domaine pël yi reen xas sunguf buñ ne garab loo rek lañ ci mën a jëriñoo reen bi ci suuf la nekk xas bi ci digg bi la nekk xob yi ñuy def sunguf ci ci ci kaw gi la nekk loolu nag bayre biñ tuddoon dañ ko siy liggéeyee ci wàllu xas ci reen ci sunguf kaaraange biñ tuddoon dañ koy liggéeyee ci xas ci reen ci sunguf waaye ci faj yaram ci xeetu hémorroïde ak ndoxu siti ak néew kattan ci loolu lañ koy fajee nga xamante ne am na traitement buñ ciy def ci néew kattan ak yi gaaw yegg fukki fan ak benn loolu moom jeex ci yow bu dut lu dut danga kaa judduwaale laaj nga ma ci wàllu xëccoo xëccoo nag buñ ko waxee nekkul xëccoo loo xamante ne moomoo ko waaye loo xamante ne ak say nawle yéen ko bokk comme ci wàllu jongante ci wàllu nguur am na xëccoo xëccoo bi nag mooy lii benn la waaye ñun ñëpp dañ kaa soxla léegi nag nan lañuy def ba am ko mooy ci yitte ak tamit dem ci nit ñu baax ñu ñaanal ñu ci nit ñi jubluñu buñ koy xëccooyee nit ñi jël loolu jox ñu xëccoo nag bi ci gën a gaaw mooy jëflanteeg wàllu jinne yi ndaxte da ngay gis nit koo xamante ne day dem ak nit ci wàllu élection nit ñi sax duñ ko bàyyi xel waaye dañuy gis ni nit ñaa ngi koy votel nga mu leer la ne lii dépassé na mbiru doomu aadama waaye jinne yi ñoo ci wàcc ñoo ci dugal seen loxo wala ñaar ñu war a ñoo xamante ne dañuy war a bëri waaye kii moo wara a ñu jël victoire bi nangu ko ci loxo ko fokkarti ko jinne jox ko keneen ci wàllu jongante loolu yëpp day am kon nag yaakaar naa loolu nga ma laajoon. Mhm. te mooy ku fi ñëw ndax dinañ ko aar dinañ ko kii loolu moom yaakaar naa dëkk bi nekkatuñ fi gan dëkk bi nit ñi xam nañ ñu yàgg nañ jëflanteeg nit ñi ci wàllu kaaraange mooy loo xamante ne ku fi ñëw loolu la lay njëkk digal waaw ginnaaw biñ seetee sa mbir xam lan moo nekk ci yaram bi ak fan nga mën a yegg ñu yeggale la foofu wàllu ubbeeku bi am na jaaru buñ ciy liggéey waaye tamit am na càngat comme yiñ la wax waaw incha allah taala waaw fum mu ne nii ñu ngi sd bu Yoff foofu lañ dëkkoon def nañ fa lu tolloog lu jege ñeenti at waaye léegi toxu nañ côté Ouest Foire foofu lañ dëkkee. Mhm. Mhm. waaw xam nga waa makk liñ doon puukare woo bi yonent ootee mooy ne ñoom duñ bàyyi seen yoonu baay inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim la muhtadun lu tax yonent ñëw indi fi lu bees te ñun diine bi suñu bàyyi jàppoon ñu koy bàyyi duñ bàyyi li suñu bàyyi jàppoon li ma bëgg a wax ci loolu mooy ñun suñu bàyyi Thierno Nourou Ba ku ñu xam la ci Sénégal ak bitti Sénégal luñ ko xamee mooy jàng alquran ak jàngale alquran ak jaamu yàlla ak ñaanal doomu aadama yi kooku nag mooy suñu waajur kon nag lii ñu nekk ni suñu deret lay daw jàng nañu nañ alquran jàng nañ xam yi ñu war a jàng waaye tamit li suñu maam yi nekkoon pël yi ci wàllu garab ak sunguf ak reen ak jat loolu tamit jàng nañ ko gëstu nañ ko xam nañ ci liñ ci yàlla xamal mag ñi ñaanal ñu ci barke moo nit mu ñëw mu ne la alhamdulilah da ngay sant yàlla nga xam ne barke ak ñaanu mag ñi moo ci nekk. waaw Modou Lo moom wax dëgg yàlla biñ koy ñaanal ci làmb boobu xamanteeguñ yàlla def ñu ñëw Dakar fii. ñu dëkk ak moom te yonent li wax ci dëkkandoo ñëpp xam nañ ko tamit mu nekk dëkkandoo bu baax koo xamante ne bu lay nuyu dangay ngay foog ne sax am na noo toll fekk moom moo toll noonu moo nekk nit ku baax koo doon ñaanal te xamagoo ko ba yàlla dimbali la ngeen nekk ay dëkkandoo mu jox la cër nga jox ko cër kooku nag sëñ bi suy xeex di nga ko xeex leen ku laal dina la laal ndaxte leer nañ ku ñu laal ko laal kooku nag la ñuy ñaanal yàlla may ko ci jongante bi loolu nag nebbanti ci ragaluñ ci péete moom mooy suñ dëkkandoo moom la njàgg faral ay ganaar sax bu ñuy xeex dina boo sotal kon nag moom la ñaanal yàlla may ko ndam ci bésam boobu loolu daal lañ ci xam ñun dañoo am kilifa suñu kilifa yi dañuy tere xam di wax ndaxte loolu mag ñi daaw daawuñ ko def ala kulli haalin Modou Lo moom lañ àndal moom la ñuy ñaanal moom la ñuy yéene ndaxte mooy suñ dëkkandoo te nit ku baax la te suñu walare la. numéro bi mu ngi noonu 77 nga def 4 def 0 ñeenti yoon nga def 35 waaw beneen numéro bi 77 675 13 13 ak 77 400 00 35 ku oote ci 600 bi jotoo nga oote ci 400 bi. whatsapp kat saay moom li gën a bëri maa koy téye ku ci wax di ma jot direct su ma jàppul waaw incha allah